للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد بسم المجيب من ديل جوبيا may jug di joobe mbër mi di sa ñaan bismil mujibi man ji li joobe may jug di joobe mbër mi di sa ngir xam ko war naa te am ko doy naa ngir ma yërëy naa xam leen sëriñ ñaan na ngeen xéréw loo déglu te teewul ci lii ma jublu mooy tagg sëñ ñaan ku yàlla màggal te jox ko ak nañ di ko màggal te moo di seen ñaan ngëneel yàlla lu mu wàcce jox ko mayam ya moom di seen ku teel mokkal xuraan te giijil xam-xam te sellal moom sëriñ ku teel a mokkal xuraan te giijal xam-xam te sellal la moom sëriñ ñaan jàngale ak yar la def ba am am diine am ngor moom yi di sëñ ñaan ku teel a nangul Seex Bàmba jébbal ko ay mbiram jël ndam yaa di sëñ gëm na boroomam jaamu boromam raw nay moromam jaajëf sëriñ ñaan jaamu boromam raw nay moromam jaajëf sëriñ ñaan te moom la doyloo ba xëy gërëm loo moom sëriñ ñaan moo sopp Bàmba jox ko xolam baya xëy gàddu yan baya maanaam sëriñ ñaan moo sopp Bàmba jox ko xolam baya xëy gàddu yan baya maanaam sëriñ ñaan joxey hadiya la làqe ndam yaa ak may iski sëriñ doonoon jàmbaar ba masa jaar jëfalu jarkaar yéem naa sëriñ doonoon jàmbaar ba masa jaar jëfalu jarkaar yéem naa sëriñ yàlla gërëm ko yoneen gërëm ko bàmba gërëm ko kenn du sa ñaan yàlla gërëm ko yoneen gërëm ko seex bàmba gërëm ko kenn du sa daa doon borom baax tey wane xar baax bay xotti ay baax iski sëriñ ñaan doon borom baax tey wane xar baaxe bay xotti ay baax iski sëriñ xar baax ga moo tax ya daa muy xam lañuy wax jaajëf sëriñ xar baax ga moo tax ya daa muy xam lañuy wax jaajëf sëriñ ñaan léeg-léeg mu gis lool diggam ba teewul baatin ba tuutul moom mii di sëñ làq na jagle yu jar di xamle te man a bégle ku sopp sëñ ñaan làq na jagle yu jar di xamle te mën a bégle ku sopp sëñ ñaan bàbbaa ko fagul ci yàlla ak pal ba muy joxe pal moom mii di sëñ ñaan bàbbaa ko fagul ci yàlla ak pal ba muy joxe pal moom mii di sëñ ñaan mooy xeetilee tey faj aajo yi kay àggale iskiy ñi sopp sëñ ñaan waaju ko jébbal boppam te dëggal buur yàlla mu cël ko ngir sëriñ ñaan waaju ko jébbal boppam te dëggal buur yàlla mu cël ko ngir sëriñ ñaan ku dégg sax aw di jëm kaw te mucc nag faw ngir sëriñ ñaan li yàlla dagaanoon seex bamba bam doon jafal gërëm leen sun maam sëriñ ñaan seex baara def naa ci moom lu jar naa biral te jug naa ngir xam le sëñ ñaan Cheikh Bara def naa ci moom lu jar na biral te jug naa ngir xam le sëñ ñaan da ku liggéeyal dëggal te sellal te woo ko kantal nañ roy sëriñ ñaan Cheikh Bamba ko moo Cheikh Bamba Cheikh Bamba moo ko digal mu def ko sangam tere ko moom mii moom mii di sëñ ñaan Cheikh Bamba ko digal mu def ko sangam tere ko moom mii moom mii di sëñ ñaan lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatul xarra wa inni ahmadu